الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu suñu sëriñ suñu soppe oustaz Cheikh Ahmed Ba atarallahu umrahu di ci teg suñu sëriñ Cheikh Abdou Latif Niass di nuyu suñu sëriñ Zeynul Abidin ak mboolem sang yi fi teew suñ tudd ak suñ yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu mbokki taalibe yëpp xam naa duñ bëgg guddal ndax ay borom xam-xam lañ fi fekk te li fi jot a jàll ci wax doy na waaye comme que luñ bin la ko sañ a gànt dañu wax rek di fàttali li ñu fi tax a ñëw ndax doomu aadama boo nekkee ci barab da ngay def li la amoon solo bàyyi jàngal nañu sufiyanke boo bi dafa ñu ne ko fóot ko mu ne ko fóotee ñu ñu ñu ko nga fóotaat من يالا بيجي بيجي فريرة أنا بيني كجامعه أنا نام تكون أنا أمون جرين أنا نيد فورا أنا لقى أمون أنا من حسن أنا المري تركو أنا لا يعني أنا تشيلي رفت أنا ونيت موبايل أنا أمون أمون أنا لن مو أنا جرين مو أنا لا إله أنا الله أك أنا أكبر إني أنا سكلام من أنا خير نكو أنا جفه لا أنا دفعي دق maanaam ñaari mbootaay rek ñoo fi nekk xisbullah ak xisbu cheytaan ah, ah, ah. kuréelu yàlla gi kuréelu cheytaan hmm. kuréelu cheytaan yi ñoom nee nañ li cheytaan bëgg loolu la samp ci kaw suuf kuréelu yàlla yi ñun loolu la fiy jëlee samp fi la yàlla bëgg ndem nañ yoon woowu dañuy xam ne nit la ñoo xam ne lenn moo nekk suñu kanam di yàlla na ne loolu nag bu ko laamañ bi waxee warul jëw warul laamañ bu waxee loolu warul dem di wax lu amut làmmañ bu waxee loolu warul saaga warul def lu ñaaw waaye cëri it war nañ dund laa ilaha illallah muy fexe lépp lu yàlla bëggul ñoom buñ ci nekk lu yàlla bëgg ñu nekk ci laa ilaha dafay dàq lu yàlla bëggul lépp lépp lépp lépp ngay avancé saxal rek lu yàlla bëgg nekk ci loolu foofu ñu bàyyi ko xel di foog lu yàlla saa su nekk dagg zunaar yi nekk suñu xol mooy di bàyyi xel yeneen yi ak ñeneen ñi ak nit ñi ak yooyu def ñu sonal waaye amul ñu benn njëriñ doomu aadama kenn rek moo ko mën a jëriñ moo ko mën a lor muy boromam bi ko bind kenn rek moo ko attanit muy boromam bi ko bind ndax kenn ku nekk si ñun dund ay waxtu yoo xam ne nii ñi nga yaakaar tey amaana xamoo leen woon démb te yaa ngi doon su ko defee borom bi yoroon démb tey jii bàyyi ko xel wax ne nit mën na laa jox ci loxoom wala mu tagg la ci làmmañam waaye boo defee ba yaakaar loxo ba danga am problème boo bëggee jubóog moom mu di la jox ci loxoom loolu continuer fexeel ba jubóog borom loxo bi borom loxo bi bu la fonkee rek loxo bi dana la liggéeyal làmmañ bi dana la tagg bët yi dana la xool tànk yi dana dox jëm ci yow waaye bis bu boroom loxo bi ŋàññee sa jëf dara dootoo ko amati ci moom doomu aadama yi lu ñu la mën a defal rek comme loxo rek la mel du ñoom la waaye yàlla la moo tax nit toujours nay teg yàlla ci kanamam su ko defee loolu gis nañ ko ci ustaas alhamdulilah ustaas ànd ak moom du moom loolu moom daf koy jëriñ waaye ki ànd ak moom lay jëriñ maanaam dafa am ñoo xam ne ni yaakaar lañ ci kaw suuf leer lañu yàlla wàcc ci kaw suuf pour ñu ñiital nit ñi fu ñuy jaar maanaam waxuñ leen lu mooy kaa leen dugg aljana am na ñoo xam ne dañ naan kaa leen mucc ngeen dugg aljana kaay leen pexe yi leen seytaane di leen fexeel mu wan leen yoon wi ngeen di jaar bu mucc saa su ñooñu la bokk moo tax dañ koy sant yàlla di ko déggee man nag xam-xam moo ma booleeg moom maanaam xam-xam bi mu yor ak xol bëgg ko xam rek la waaye yàlla dem na ba bari ñu boole ci gént amaana moom yëgu keroog maa ngi koy wax benn taalim bu ma seet si ma ne ko man de fan yii damaa gént ustaaz ñu toog mu di ma jàngal téere bàyyi ba mu paree ma laaj ko benn laaya ci alquran mooy Ibrahima li ma wax naan lii mooy sama borom bi jant beeg yooyu ustaaz firil ma ko ci baatin firi moo xam ne mosuma dégg firi mu mel noonu boobu may yeewu maa ngi xam lépp lu wax waaye mënu ma koo wax nag comme ni mu ko doon waxee. waaye firil na ma ko ci ñeenti maqaama firi mu yéeme mu yéeme mu yéeme nitu yàlla la. Hmm. saa su nekk rek yala kiiyee rek yàlla dana lay won ay mandarga yu wane ne nitu yàlla la doy na rek ne nitu yàlla la mooy papa Cheikh Tidiane mi ko fonkoon papa Cheikh Baye daf ne pare na ci moom li mu bëggoon ci moom am na ko kooku du teg ci kanam ku nekk ci gannaaw ñooñu amuñ cëru bakkan seen lépp yàlla la moo tax saa soxluwul mbooloo waaye nag mbooloo mi war nañoo ñëw ngir ñu jariñu oustaz soxla wut ku nekk ci gannaaw waaye yéen war ngeen góorgóorlu ba ni ñu nekk ci gannaaw ngir ñu jariñu ndax an naaji min a yaxusu bi yadi saaxibihi ku mucc ci ñun dafa war a jàpp ci loxo moromam pour mu mucc loolu moo ñu fi tax a ñëw pour ñun ñëpp ñu mucc ku ñu war a dimbale la buñ ko dimbale wut yàlla dana ko dimbale waaye it da war war nañ koo dimbale ñun ñëpp war nañ koo dimbale ndax buñ ko dimbalee rek nit ñi mucc su ko defee ustaas buñ koy wax nag xam-xam bala ustaas buñ koy wax njub gëla ustaas buñ koy wax wilaayatu gi mbaax gi ñu wax ne mu ngi ci moom mu nekk ci ñun loolu mooy sagam loolu mooy ndamam bàyyi daan na wax ne bu ngeen fexee ba defal seen diggante ak seen borom teral ngeen moo doyof teraanga waaye moom it lisaanu xaalam ak léppam loolu rek lay wax dafa am benn wëlli yàlla bu ma fi génn àdduna benn xaritam ne moom moo koy donn parce que nekk naa moom ay fan yu yàgg benn xakim na ko déet mbaam mi na fi gën a yàgg parce que mbaam mi nekk na ak moom fi gën a yàgg su dee loolu mbaam mi moo ko war a doon kon oustaz jege ko rek am na koo xam ne amaana sori na ko mais mu jël jikko oustaz yooyu kooku moo la gën a jege oustaz boo jegee làmp da ngay ñiitu mais bu ko jege ne jege naa oustaz rek li yàlla def ci moom ba nga bëgg ko leneen la loolu ci biir la nekk fexeel loolu tax nga bëgg ko mu nekk ci yow ñun loolu la ñu wuteeg yeneen yeneen ñi ñeneen ñi dañuy fonk seen sëriñ parce que sëriñ bi def na karaama naaw na ci jaww ji nga fonk ko ci loolu te doo mën a naaw ci jaww ji amul njëriñ waaye ñun liñ bëggee bàyyi dafa nekk ci ñun maarifatu billaahi gi nga xam ne moom lañ ko toppee dafay nekk ci taalib bi gën a ndaw oustaz ku ko bëgg da ngay fexe li nekk ci moom mu nekk ci yow bokk na nag ci jikko yi nga xam ne nii gis nañ ko ci oustaz raar si jamono ji yi nga xam ne dangay ngay toog baskam da ngay laajte ndax la doon njub dañ koo folli indi leneen loo xam ne moom mooy njub gu bees la doon xam-xam ndax dafa mujj nekk réer la doon réer démb ndax moo mujj nekk xam-xam da nga laajte question boobu moom boo ànd ak moom yàlla mosul ci loolu. am na ko wax léegi ne am na ko wax ne ko boo ñëwee ma fay la sax fay la mu waa xaw ma cent cinquante mille loolu tuuti na si sa xaq oustaz bu benn minute benn gendeeku da ci am lu ëpp àdduna ak li ci biiram. te daa nga àllaaxira xajul fii moo tax du ko fayee fii. waaye bis bu ngeen demee ba foofu rek nga xam ne ay milliards at ngeen fay dund da ngeen xam lan mooy résultat wu àndoon ak oustaz benn gendeeku nga am ci loolu waa ji la saa su nekk dafay simmi bu simmee dara jox la bu dara ji ràppee nag wala mu xotteeku oustaz nag moom bu simmee ma xaama jox la boo ànd ak nitu yàlla ma bu mu simmi yow nga yëg ci boo góorgóorloo laa wax loolu ëpp njariñ te loolu mën na laa may ay milliar te du la yàqal alaxira léeg-léeg nag mën ngeen a dem bés kanam ngeen am problème affaire yi yàqu dara ji rab sa affaire yàqu moo tax ñu mel nii yal na leen fi yàlla bëri bu ñu bëree ci pay bi pay bi siggi parce que fu ñu toog xam-xam la ñuy wax te ku ñu wax ak nga kontaan maanaam nga naw bàyyi nga bëgg bàyyi boo bañoon bàyyi sax boo xoolee oustaz da ngay bëgg bàyyi dëgg yàlla ku nekk mbëbal na ku mel nii nekk sa gannaaw est ce que xaj na ci gannaaw kenn waaye nag xaj na ci gannaaw Baye Niass. Oh. ndax Baye ku ne xaj na ci gannaawam ku ne ci gannaawam waaye ku ne bëgg na ku mel ni oustaz nekk sa gannaaw ñu ngi wax ne jikko lañ soxla ci ñun ñu nekk ay jaamu yàlla rek affaire bi du wax ju bëri ak coow lu bëri ak nangam nañ nekk jaamu yàlla bu njëkkoon xeet yu njëkk ya daan nañu yore jikko yoo xam ne mu ngi bëgg a raar si ñun te ñun ñooy kuntum xeera ummati ñooy xeet yu gën ci xeet yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal nañu. ci banu Israël ay jikk yoo xam ne nii yaakaar naa ne ci xeetu yonent bi la waroon di gën a bëri danaa koy wax toujours ne war nañ di ko nettali lu bëri muy maandu bokk na ci bu njëkkoon am na ku ñëw leb nit mu ne ko kuy sa seede mu ko yàlla mu lebal ko waxtu sàngam nga mu war a fay waxtu wa jot waa ji tukki na jël gaal waxtu fay ko ba muy jot bëgg naa ñëpp si amul gaal bu ko waaye ci tem ak ragal yàllaam ak wóolu yàllaam dafa jël benn bant xar ko dugal ci xaalis bi def ci leetar sànni ko ci géej gi ne ko yàlla joxal ma ko borom ndax waxtu wi jot na te mënumaa dem mënumaa teew ba waxtu bi jotee waajooji moom it dem ci géej gi taxan yi gis fa matt ma for ko yóbbu gis leetar bi jël xaalisam ba mu ñëwee amul foofu mu demaat ne ko am sa xaalis a nga nii damaa bëggoon a ñëw aw ma gaal gu ma jël moo waral ma jëlal sa xaalis waa ji na ko xaalis bi fay nga ma ko bu yàgg ki nga jox ni bi indi ko gis ngeen maanute googu ak ragal yàlla googu si ñun la gën a yee parce que ñun ñooy xeet bi gën ci xeet yi bu ñu wut àdduna dama koy wax toujours bu ñu wutee àdduna lu ñu kii dara parce que àdduna buur yu njëkk yi dañu naan bàyyi àdduna dem dem jaamu ji yàlla yow nga am jaamu yàlla ba fare di wut ci àdduna nguur gi nekk ci li oustaz nekk nii bu buur yi xamoon bàyyi seen pale mhm. nettali nañu ci histoire ñaari buur yoo xam ne kenn ki dafa génn gis ne nguuram gi mu ngi koy tardeel diggante mu bor moom mu gàddaay dem ci àll ba di jaamu bor moom ci benn tefesu géej bu demee rek di di móol ñi di ko fay muy dund te buur la woon kooku dafa bàyyi nguuram ngir yàlla buru dekk bobu yek ko ak mbaaxam ak ragal yalla ak jaamu yalla mu invité ko lu muy defee nguur mom ci nguur la jógee mu bañ buru bi invité ko ba son mu bañ mu fekk ci ko bam koy fekk ci waji daw ba mu ba yegg ko ne man waxuma la dara dara taxul ma invité la lu moy dama la bëgg rek bëgg xam ci lo nek mu expliquer ko ci lan la ne ko li nga nek gëno mako soxla mu it bàyyi nguuram ñaan yu jaamu yalla bëgg lii ñuy wuti tey am na jaamu yàlla yu muus yoo xam dañ koo bàyyi pour wuti yàlla te wallaay boo wutee yàlla yàlla may la at xanaa nga bañ koo soxla mais lii nekk sa loxo si àddina kenn mënu ko am su ko defee ñu ngi gàttal di wax jigéen ñi ne góorlu góorgóorlu leen fexe ba jikko yi oustaz yore bu leen ci kenn raw tey lu yàq lu bari jigéen loxo man ngi ci waaye lu baax lu bari jigéen loxo man ngi ci góorgóorlu leen ba mel ni xadijatu góorgóorlu leen ba mel ni mariama mi nga xam ne yàlla bu ko tuddee jigéen la de waaye bu koy jox maqaama maqaama góor la koy jox wa kaanat minal qaanitiin jaamukatu yàlla yu góor yi ci la ko boole comme ni ko Baye waxee góorgóorlu leen ba mel ni asiyatu bintu mazahim jëkkër ja bon na lool waaye moom mosul changé bàyyi nee na ëllëg yàlla ci jigéen soxnaa yonent bi la koy boole ndax ragal yàlla am ak nekk gi mu nekk jaamu yàlla góorgóorlu leen ba mel nii Rabi'atul Adawi àddina taxul koon a jóg jigéen du matériel nee nañ jëkkëram génn àddina mu toog dégg nga ne man du ma seeti góor ñi ku ko labat mu bañ ñu andil ko borom xam-xam bu mag defe naa Xasanul Basiri la mu ñëw ne ko di ko labat ci mu ne ko dama lay laaj ba pare mu ne ko aywa bismillah mu ne ko bànneex ñaata la xaaj la mu ne ko fukki xaaj juróom-ñeent yëpp mu ngi ci jigéen benn bi rek góor jël xel ñaata la fukki xaaj juróom ñeenti yëpp mu ngi ci góor benn bi rek la jigéen yore mu ne ko toskare ñeexal na la man sama benn xel ma man see not juróom juróom-ñeenti bànneex yow sa juróom-ñeenti xel mënoo see not benn bànneex dem leen doxi fële kooku ragaloon na yàlla ba nga xam ni moom daan na fàtte cef ngay bànneex yi ndax teewlu yàlla loolu bàyyi ne na taalibeem noonu la war a mel hakaza tanaamisati wal bàyyi mu ñu bëgg a jàngal ne jigéen ñi bu ci kenn raw war nañoo dem ba fàtte jëf ngay bànneex nga xam ne lépp lu ñuy defati yàllaay tax toujours nañu fuglu yàlla gis nga yàlla moom moo lay sant dara ba pare def la examen moo naan la bàyyi lu bon ba pare ñëw taxaw sa kanam yow de boo defee nag da nga yaakaar ne leneen taxaw sa kanam mais yàlla mi lay aaye moom moo nekk sa kanam booy def mu ngi teew ak yow daf lay sant dara defal dara ba pare ñëw aaye la ko ba xam ndax martabaam bi nga xam ne mooy martabatul jaamee moom nga ragal wala moom bindee fi nga ragal bis boo ragalee bindee fi am problème bis boo leen yaakaaree am problème mais booy fooglu yàlla mu naan la defal ngay def mu naan la bàyyil ngay bàyyi waxal nga wax noppil nga noppi da ngay wax ak yàlla ni ñu yaakaar ne ñoom ngay waxal maa ngi nuyu ñëpp di gàttal guddal naa maa ngi nuyu oustaz bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu